asalaamaaleykum senegal jaar nañ leen bu baax di leen nuyu ci barke yonent bi salaa salaam ah ci barke Cheikh Ahmad Tidiane yàlla na yàlla li jaar ci barke awal akiri zahiru baatin ah dañoo digg gis diggante benn commentaire bu ñu wax ci diggante Modou Lo ak Balla Gaye bi ci guddi guddi daf ñoo am lu ñu wan ci diggante Balla Gaye ak Modou ah, ñu guddi yóbbu ñu ci Modou Lo fi muy defee ci muy kaayam fi muy solo di wàcc di dem laa ga ñu fekk ko fa. ni ko Modou Lo mun ma mun ko teel matt kéwél bii nga def ko sa ngemb mu jël matt kéwél bi def ko ci ngembam bi ma joxaat ko beneen matt kéwél bi ni ko def ko sa ngemb bi mu def ko ci ngembam bi ma damm beneen galañu matt kéwél jox ko ni ko def ko ci ngembam bi ma sëñ bi su ma ko defee ci si ngembam bi su may bàkku daf may gaañ baal ma seex mattum kéwél bi ma jox ko mu sex mattum kéwél bi ñëw ba ci biir arène bi commencé bàkku di sànni loxo yi di tuus di wane di wane loxo yi après police bi daan ni Balla Gaye ak Modou seen yaram dafa sedd nañ leen dugal ci sauvage bi ngir ñu tàng biñ leen dugalee ci sauvage bi pour ñu tàng ñu taal contact bi dugal leen ci toile yi taal contact bi bi ñu taalee contact bi seen tànk yi mi ngi doon xonk léegi muy weex di weex di weex di weex ba gisatuñ tànk yi ndox amatu ci ndox mu deret amatu ci bi ci ndox mu deret amatul benn policier bi daw daan ne fay leen contact bi fay leen contact bi contact bi ëpp na. bi contact police bi fayee contact bi ñu génne leen ci trois yi bi ñu leen génneel ci trois yi ñu sotti ndox mu sedd sàng leen seer pour de xaar ñu jóg mais boobu ba léegi kenn jógul ci ñoom bi kenn jógul ci moom nit ñaa ngi xaar pour ñu jóg ñu tëgg làmb ji kenn jógul ci ñoom ci la benn supporter daal di dawe bi mu dawee yëkkati sër yi mu yëkkatee sër yi daal di ñii koy dee nañ bi mu nee ñii dee nañ public bi commencé wàcc di wàcc di sànni xeer di xeex naan. yéen a rey ñii yéen a rey ñii kon combat bi dafa mel ni Sénégal en lu àdduna jarul lii combat bi dina nekk bis boo xam ne Sénégal dot ñu ko fàtte ci illaa yow mi diine combat bi na nekk bis boo xam ne xol yu bari dinañ jóg combat bi dina mel ni bis boo xam ne rangoon yu bari dinañ tuur parce que jëfe àdduna jarul lii rafet leen jikko ci li ngeen di def sànnante lu bon ni jaru ko combat bi nekk na combat boo xam ne dina des si xolu Sénégalais yi kon rafet leen jikko te ngeen xool li ngeen di dund ñaawteef bi bu bari na defante bi bari na di garante bari na combat bi baaxul ci Sénégalais yi parce que policiers yaa ngi jóg di xeex ak nit ñi di sànnante ay xeer te ñiy sànn xeexal ak yi policiers bu ñu jàpp dañ lay rey kon diggante combat ak Modou Lo li ñu ci guddi wan nekkul lu baax safaan rek ci nekk kon Sénégalais yi. lépp loo leen mën a dox ci jàmm ak lépp loo leen mën a def ci jàmm ba jàmm deltu si lii na ngeen ko def parce que nag lii raam ci ñag ba la jëm waaye egsi na ci parce que dimanche incha allah kon lépp lu doomu aadama di waajal na nga jullit tey ñaan xam ne lii warul am ci senegal ñaaw def doy na ci senegal doyoon na waar tamit ci Sénégal alhamdulilahi jaar nañ leen bu baax yàlla yàlla mottali jaar waaye nag dellusiwaat leen ngeen xam ne alalu àdduna jarul lii doomu aadama taxaw di ko jëfe te fi bari na ci làmb ji te ñoom ñaar komba bi baaxul komba bi baaxul da yàq doomu aadama komba bi day yàq nit komba bi ñu gis Modou Lo ak Balla Gaye day yàq nit mais du defar nit dafa yàq nit mais du defar nit dina yàq doomu aadama dina yàq doomu aadama waaye du defar doomu aadama wasalaam jërëjëf